yéen ñëpp maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa xam naa damay demee rek ni kilifa yi ma jiitu niñ demee wax ne wax ji jarul muy gudd ba pare ñu tënku ci li ñu wax tënku ko waaye tënku yu am solo kon euh, loolu duma ko yàq ba man tamit damay jéem a dox ci démarche boobu waaye li may wax rek mooy maa ngi leen di undil nuyoowu خليفه باي موي شيخ محمد الماح ابراهيم نياس خادم الامه أه ميغي رافيت لو لول ليغي بو ملني موم يالا داف كو ناتو داف كو موي خليفه بايام وايي بيم نيوي فك نا في اي ماغام يو خامني جيتو نانكو في نيكون خليفه ليغي في ليغي بو رافيت موني نك ميغي فاتليكو بيم نيكي خليفه واخ جو خامني باي نياس موكو نيتالي ne baayam alaaji Abdoulaye daana ko ko wax ci mujj dundam maanaam ci mujj dund bu baayam mel ni baayam dafay tàggatoog moom am na lu bari lu mu ko dénk waaye am na baat yoo xam ne daf ko doon répété ci mujj dundam mooy lan mooy daf ne ko doom boo ma gisatut ëllëg ñett yi di ci dégg benn ñett yooyu nag nga xam ne da nga ci dégg benn léegi ngay décider yow ban nga ci bëgg dégg nga commencé liggéey ci loolu ñett yi ngay dégg lan la benn danga dégg melaw ni sa baay wala nga dégg mel nga ni sa baay walla nga dégg yaa gën sa baay mu ne ko loolu ñett yooyu bëri nga dégg ci benn mu ne ko melaw ni sa baay mooy li fi sa baay bàyyi woon ak say maam yàq nga ko wala téyewoo ko ba nit mën koo jëlee ci yow mu ne mel nga ni sa baay nag mooy li fi sa baay bàyyi woon téye nga ko ñoŋal nga ko sàmm nga ko ba tey ku ko soxla mën koo jëlee ci yow mu ne waaye nag yaa gën sa baay moom li muy tekki mooy li fi sa baay bàyyi woon tée nga ko ba mu rafet waaye tabax nga ci kaw fondement boobu yokk nga ci loo xam ne sa baay defu ko mu ne moom nag wax jooju lay lay lay teg ci kanamam ne fekkoon na fi ay xalifa yu ko jiitu dana mu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp ñu ñaanal ko yàlla ñun ñëpp ñu ànd liggéey bañ mën a wax ne li mu fi fekkoon ay magam ak ay ñi ko jiitu woon ci xalifa def ko téye na ko non seulement waaye yokk na ci loo xam ne ñoom defuñ ko woon te yaakaar naa ne tàmbali na loolu loolu nag mooy mooy ñun ñëpp kenn ku nekk sa bàyyi bopp ji sa yaayi bopp ji waaye Sénégal mooy sa yaay mooy sa baay walla sa maam yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci Sénégal lépp luñ fi def ci lu baax ak yéen ñii sax yore environnement ak yore yore yore mbootaay yi ñi leen fi jiitu woon lañ fi def ci lu baax ngeen téye ko ba pare yokk ci leneen loo xam ne ñoom jotuñ ko woon a def yàlla ñu yàlla may loolu suñu waxee nag ci wàllu jigéen ak développement comme dafa war a gàtt dama bugg a jël benn misaal boo xam ne du jar may tari ay aaya yu bëri parce que dana xaw a métti du jar may ay tari ay xadis yu bëri waaye nag danaa indi benn modèle boo xam ne aaya yaa ngi ci biir hadis yaa ngi ci biir te tamit dana neex a jàpp lool ñoom Seyda Mariama Cissé bi nga xam ne suñ ndékkiwut wala añuñ duñ mën a dégg loolu danañ ko mën a dégg parce que du son du métti lool misaal moomu képp kuy wax di jullit di wax développement ci lislaam am nga benn jigéen boo xam ne modèle bu mel noonu ci wàllu économie médool modèle bu mel noonu ci wàllu social du góor du jigéen amul fenn ci àddina bi lu may ci lislaam te benn jigéen la yaakaar naa ne su ma laajte woon sax su ngeen euh, kiyee tuuti man ngeen maa wax jigéen jooju kan la jigéen jooju mooy kan mooy xadijatu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa nekk na modèle économique nekk na model social boo xam ne àddina bi yépp amaguñ misaal bu mel noonu waaye nag képp kuy jigéen ni jullit yow war ngaa góor góorgóorlu ba lépp luy dox ci àddina bi ci xam-xam ci avancement nga jël ko waaye nag war ngaa fàttaliku ne am nga yow modèle boo xam ne yow normalement boo boolee li ñëpp am yokk ci loolu yow kenn warulaa raw lu tax nag balaa may dugg balaa may sori ma jël modèle boobu parce que euh, Sayyidatuna Khadija yàlla daf koo may loo xam ne néew na mu daje xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne euh, góor ñi en général bu ñuy ut jabar ñeenti yëf lañuy ñuy seetu ci jabar moo leen di motiver benn bi mu ne jigéen ju am askan ñu ne ah dafa bokk ci famille boo xam ne famille bu bu ñu xamee xam-xam la famille bu ñu xamee ay jaloore la famille bu rëy la boo xam ne ku nekk bëgg nga cee bokk suñ la accepté nangu la yëg nga ne loolu yi tamit mooy ne yow yëg nañ ne yow yi tamit góorlu nga loolu ñëpp bugg nañ ko mu ne waaye bugg nañ tamit léeg-léeg jigéen joo xam ne dafa taaru lool nga xam ne a taaram bi àgg na ci foo xam ne képp kuy góor rek soxla nga ko pour sa bopp wala nga soxla ko pour sa doom wala nga soxla ko pour sa soxla nga bu dugg sa kër jigéen ju nekk sax bugg nga jigéen jooju dugg sa biir kër dégg nga pour say doom wala say sët mu ne wala ndaw si am alal man boppam te yéwén loolu tamit góor ñu bari dinañ ko bëgg mu ne wala ndaw soo xam ne moom jikkooy lislaam yu nekk ci moom jikko ju baax ju rafet moom lañuy ut ci moom mu waxoon nag ne su fekkee ne man ya man yonent bi danga nga may tànnloo ci ñooñu jigéen ju taaru baax na de jigéen ju am alal baax na de jigéen ju am askan baax na de waaye mu ne boo bu ci boo bu ci diine yokkoo loo ci am rek bu dee bu ci diine yokkoo rek gañe nga bu dee diine kese nga ci uti tamit ba tey yokku nga kon loolu li mu doon tekki mooy jigéen ju boole yëpp yombut xadijatu nag dafa boole woon yëpp ci makka askan bi gën bi nga xam ne arab yëpp nangu nañ ne mooy askan bi gën mooy xuraysi te ci la yàlla tànn yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeet boobu moom ca ña gën la bokk taar arab yëpp bañ dajalooyee gisuñ jigéen ju mel ni moom ci taar moom dafa mel ni taaram bi bokkut sax jógewut ci sax ay xeet ak mbokk waaye dafa mel ni moom exception la rek boo xam ne yàllaa ko indi bu dee alal la makka ba makka jeex doo wax sax makka waaye arab yëpp yëpp booba benn activité lañ am mooy commerce arab yi commerce lañ xamoon lii laa fi si looloo ko tax wàcc commerce bu rëy boobu noonu ci mboolem zone ci mboolem arab yi mom mo nekkone bob bi nga xamné locomotive bi nga xamné ne mo yoré commerce bob. ag na ci liggéey ba am alal jo xamné ne nit ko xamné ne bëgg ngaa commerce manam danaka mo nekkone banque centrale bi nga xamné ne banque bi nga xamné ne képp ku bëgg commerce il faut nga jox ak mom mo lay jox capital bi nga xamné ne moom ngay liggéey waye rawatina jigéen ñi ak jeune yi ba tax na jeune yi képp ku bugg a samp kër wala nga bugg a takk jabar il faut nga jox ko Xadija ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ci boppam bi mu demee ba mat ba war a takk jabar ay mbokkam ñoo dajee ne ko ñun dey gis nañ ne war ngaa am jabar tollu nga ci te nit ku baax nga nit ku sell nga xale bu sell dafa war a teel a am jabar mbokk gi yëpp a ngi dajee waaye amuñ moyen nu ñu def nijaayam mi ne déedéet amut nu muy def lu may dem def ni moromam yi di def moromam yi naan la ñuy def mooy dem ci xadijatu mu jox la lebal la jox la euh, marchandise nga dem jaayi dem jaay dem jaay ba am ci dara ñëw loolu lañ koy takkalee jabar xam nga nag kon xadijatu àgg na ci économique ak foo xam ne yaakaar naa ne jigéen ñi fa àgg bëriwuñ arab yëpp yëpp yëpp yëpp ba ci yonent bi sax kontaagam ak xamanteem ak Sayyidatuna Aysa liggéey moo ko waraloon maam moo jox yonent bi xaalis jox ko marchandise mu dem jaayi kon xadijatu moomu àggoon na foo xam ne kenn xamu ko ci xal ci alal bëri alal di def social bu bëree bëree bari yore yore njaboot gi di leen dimbale waaye jeunes yi ak xale yu jigéen yi képp ku ci bugg a samp kër boo jokkoo ak moom balaa juróom benn weer nga am loo takkee jabar wala nga am loo defaree sa kër wala wala nanga loolu yaakaar naa ne moom mooy modèle bi nga xam ne nii bëriwut lu mu am lu tax nag ma commencé foofu parce que Sénégal gi man damay wax ne jigéen ñi wax dëgg yàlla dégg naa ci li ma dégg information yi ma jot a jot ñuy wax ne banques yi sax jigéen ñi lañ gën a sawar di lebal ak ñiy leble ñu ci bëri xaw ma léegi ndax changé na wala déet mais am na jamono boo xam ne ñoom lañ doon gën a sabar di lebal parce que dañuy liggéey te dañuy fay léegi nag dégg naa yu bëri toujours ma gis koo xam ne dafay ñëw wala dama amee dama jëloon ci xaalis bi banque ñu may o dama jëloon ci mbootaay bi xaalis ñu ngi may oo yooyu mooy ne ñu ngi ci bëgg commencé dugal yu ci bokk waaye am na loo xam ne man maa ko remarqué sama bopp damay toog guddi di jàng di liir di liir di liir ba sonn trois deux heures du matin ma gëm gëmmentuwuma te toog naa lu yàgg ma génne na damay doxantu su ma demee ba ci garage bi garage Baba Gueye trois heures di matin damay gis oto yu jógee jawbe ak lu gën a sori jawbe ay jigéen rek ñoo ciy wàcc ak coono boo xam ne da ngay xam ne ñii ay liggéeykat la kon jigéen ñi ay liggéeykat la liggéey jaral na leen lu nekk lu toll ni jawbe guddi gii ak danger yi ci nekk ak risques yi ci nekk ak lépp gisuñu ko ñuy dem waaye problème bi mooy lutax ñu war jël modèle Khadija moy jigen ñi tamit dafa am luñu leen di reprocher moy dañuy liggéey ñaq ci ngor ci nangam am dara mu légal waye nak suñ paré fi koy def lan la fiñ koy def lan la ay xew ay ay nangam nangam ay poukéré ay nangam nangam bam mu mu dem ci ngelaw motax tax na nga gis ci ku taxaw lu ku ci taxaw bañ joxoñ ko rek bu ci mu naan nangam nangam fekk gestion bu waaw moom moom moo koy waral looloo tax nag ñu war a jël ñu war a jël misaal ci Xadija bi mu amee xaalis naka la ko def loolu loolu mooy misaal bi beneen bi ci topp mooy am na phénomène bu ma seetlu loolu moom góor ñi laa koy wax maa ngi leen di avertir man dafa ma tiital dafa may tere nelaw dama gis liste bu bëree bëree bëri bëri ci ay jigéen ñoo xam ne dañu teel a ñàkk jëkkër maanaam day taali soit seen jëkkër dafa teel a gaañu wala boog dañoo tas waaye tas bi sax moo moo moo moo gën a garaaw parce que ku sa jëkkër dem moom dem na mm, nga dese yàlla waaye nga takk jabar am ak moom ñaari doom wala ñetti doom fase ko xawma lu tax nga nga nga mere ko waaye nga faseyaale doom yi nekk ci dëkk bi am ay moyen sa yeneen sa beneen jabar bi nga amee nga jël seey doom jël doomam yóbbu leen ci ote ci école yu baax ñu jàngal leen di sol yére yu baax di dugg ci oto yu baax di dem di jàngi di romb xale yooyu ñoom ñuy buuxante ci école yi duñu am luñ fayee duñu am luñ nangam ngir mere seen yaay wala boog da koo fase te doyaloo ci moom xaw ma lu lu koy waral waaye loolu mu ngi fi fees del jigéen ñi tamit foofu danañ fa waneyaat beneen njàmbaar mooy takkaayu sacrifier seen bopp am na ci ñoo xam ne sax dootuñ bëggati amati jëkkër teg seen bakkan yi ci seen doom yi bañ bañ ba doom yi tekki nekk borom yi jikko waaye am lu ne. fofu sax dana len fi nettali benn jigéen boo xam dama ko deg man dama dama dama dama compliqué motax taxna ba euh, euh, télé Sénégal yi sax yalla ma yalla bal lu ci bëri du ma koy parce que dafa am débat yo xamne vraiment man sérieux pour man waye dama deg ben jigen mu wax lu am solo mune mom bi mi jang yalla daf ko mayoon xel mu am itte ci njàng mbollem ñim daan jàngandooral mo len raw ba bi def bak mbooleem ñim bokkaloon di jàng ci ay jigéen matière yi nga xam ne daf leen a jafe moom moo leen koy waxal te du benn matière kii dafa am problème ci mat ci moom lay ñëw kii dafa am euh, problème ci science physique moom lay ñëw kii dafa am problème ci leneen ci moom lay ñëw ñëpp matière yëpp moom moo leen ci daan dimbale ñu am bag bi ñu amee bag dem université gëstu yi tamit dañuy ñëw ci moom yu référé wu ci moom ba ñu am seeni diplôme ba commencé liggéey ñoom ñëpp mu ne waaye am jëmmi jamono ñooñu mu doon liggéeyal ñoom ñëpp ñu defaat ay formation ak defaat ay gëstoog ñiy jël disponibilité demaat yokk seeni diplôme ba benn jëmmi jamono ñoom ñëpp ñu am ci moyen lu ëpp lim am moom yaayam nag affaire bi naqadi ko mu oo ko mu ñëw mu ne ko man daal damaa féeroon ci yow waaye fi mu ne yaa ngi bëgg yàq fierté bi mu ne ko lan la mu ne ko ñii nga xam ne yaa leen daan dimbale ci njàng yaa leen mas a jiitu yow yaa nekkoon seen modèle ci lu nekk tey ñoom ñu am ambition ba am lu nekk ci àddina yow nga taxaw fi nga taxaw sa ambition taxaw mu ne ko suma ambition taxaw du yaay kaay ma wax la li tax damaa gis ne jàng naa ci école bi waaye nag dangaa def ci man jikko dangaa def ci say doom ko yoo xam ne yow demoo école waaye dangaa def ci say doom jikk ko yoo xam ne moom la leen àddina bi yëpp nawee moo tax mooy kele seen réussite mooy seen fierté te man kenn laa ci ma gis ne fi ma toll suma continuer di jàng di continuer di responsabilité du ma am taawu loolu nga ma def ci man ma transfert transmettre ko samay doom moo tax ma garde, ma ma ma ma ma yemale suma ambition ci wàllu wàllu am-am pour am temps pour mën a def li nga def ci man ma mën koo def ci samay doom parce que bu boobaa bu ma ko defut damay damay damay damay damay damay damay damay goreyaat yi looloo tax yaayam ne ko wax nga dëgg parce que réussir économiquement réussir si vous waye su ne fay nek ci kaw sa euh, éducation yi doom yi ci nga koy tabax wala sacrifier say éducation pour lolu lolu bu eh, développement bobu amul waye développe ki qui est di ba am ngor dafa am lu arab ñu ne kullu ma zada an xaddihi inqalaba ila duddihi lu nek rek lu mu bax bax dafa wara am limite bo xamne fa la wara a yem bu ko passé da fay sopaliku sopaliku safan ba sukar buñ la joxé légui lek bu wara am sukar xajna bo amut sukar du neex bo ci defé sukar bu yem mu neex waye bu uppé da ngay dégg olof ne dafa wex sukar xam nga olof sukar bu féké dafa wex du watul sukar suukar warta wex moo tax buñ ne dafa wex wala dafa wex xorom kon duwatut xorom parce que xorom ta wex loolu nag mooy mooy jur lan mooy jàmbaar googu ak taxaw googu damaa gis tamit mu jur conséquence conséquence bi mooy lan nga dem ba taxaw say doom tekki nga ne akoon ah, de góor jaru ko jël say doom gëm loo leen ne ne bu leen bu leen bëggu jëkkër bu leen bu leen ut góor parce que góor ñi tekkiwuñ dara dañ lay tardé lañ lay nangam dañ lay nangam te yow am jëkkër moo taxoon nga am doom kon sa doom yi bu ñu amul jëkkër wala faalewuñ jëkkër nu ñuy nu ñuy amee njaboot gu baax kon naka lañ amee société boo xam ne société buñ tabax ci yërmande la ak ak mbëggeel ak cofeel mun a nekk kon loolu yi tamit dañ ko war a ut fu mu yem parce que léeg nga dégg ku ne jigéen ñi ñu ne waaye góor ñëpp a yem góor ñëpp a yem mooy góor ñëpp baaxuñ waaye koo ci ne sa baay baaxut mu mu jël xeet dóor la xanaa sa baay du góor moom comme sa bàyyi boobu ku ne la baaxut nga ne nga ne nga ne nga ne nga ne xeex ak moom ba pare te yow yaay wax ne góor ñëpp ñoo góor ñëpp a yem te sa bàyyi mënta nekk jigéen kon loolu tamit dafay wane ne yëf yi du noonu su fekkee ne développement ak avancement wu jigéen ak indépendance wu jigéen ak automi xawma autonomisation jigéen li muy jur mooy nekk noonu góor ñi ak góor ñi dañuy tardeel dañoo bëgg dañu lay bëgg a nàngam teg leen fële te ñoom ñooy génn wàllu société bi mi ngi mel ni nit ku bëgg a doxee ku ku a doxee benn tànk koo xam ne moom moo moom dindi benn tànkam bëgg a doxee benn benn tànk mënu dox wala dox bi tamit du baax ñu war jël benn philosophie boo xam ne sëriñ ma ko wax nit ñi waaw philosophie boobu mooy lan mu ne nañ jël philosophie Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah moo daan wax Afrique ñetti façon Afrique mais ñetti Afrique yëpp dañ ko soxla mu ne Afrique bu njëkk bi mooy Afrique coloniale bul tëb tëb rek ne tubaab yi colonialiste baaxuñ nangam nangam tubaab saay-saay tubaab nangam tubaab nangam tubaab nangam déedéet mu ne héritage colonial dañ koo soxla parce que technologie bii nga xam ne lii li ci gën a ndaw mooy caméra yii am na ñoo xam ne fi ne ña nga toog Amérique di ko seetaan léegi léegi léegi nii fi ak ba fanweeri at juróom fukki at boo ko consulté nga xam ne say maam ak say baay fii lañ toogoon di def lu baax lii loolu tamit technologie boobu bàyyi Niass dégg naa ko mu ne sama baay muy maam Alaaji Abdoulaye dem na Makka ren ba déwén amuñ ci moom xibaar maanaam toog na at boo xam ne mënuñoo am sax ci moom xibaar bu leer fan la toll ak ndax fu mu toll. tey léegi waa ji oo ne la maa ngi nii ci biir avion bi huit heures de temps après mu ne la ne mu accident Madinatu Munawwara avancement boobu ak yeneen ak yeneen ak lii technique yi ngeen fi wax ci changement climatique bi ak yeneen ak yeneen ak yépp yooyu yëpp ay xam-xam la yoo xam ne mu ne loolu mooy héritage colonial te loolu dañ koo soxla kon loolu nañ ko jël téye ko mu ne waaye dafa am beneen Afrique beneen Afrique bi mooy Afrique gu aada cosaan boobu yi tamit buñ ko neenal parce que yàlla amul defut dara ci kaw làmbatu moo bind arabi Saoudite moo bind France moo bind Angleterre moo bind ku nekk mu defal la say aada ak cosaan kon Sénégal yi tamit buñ xeeb seen aada yeeg seen cosaan kon dafay mel ni yàllaa leen xeeblu te yàlla xeebu xeebu kenn yow yaa dut valoriser li nga am maa ngi gis keroog buuru euh, kii euh, reenu Angleterre ñu def benn reportage ci moom wax budget bi nga xam ne moom la état bi di jël di ko jox seen train de vie ñu wone ren bi jamono boobu mi ngi amee woon trois cent dàll trois cent chaussures yoo xam ne benn bu ci nekk rek li muy jar bu ñu la ko waxee doo ko gëm waxuma waaw ak yére yeeg nangam ak nangam lu am solo li soog a ñëw lekk geeg nangam ak nangam ak nangam mais bi ñu ko waxee ba pare dañoo def micro trottoir laaj nit ñi ndax am na benn anglais boo xam ne jàpp nga ne lii baaxut wala dañ ko war a changer wala lii ëpp na ñoom ñëpp ñu ànd ne lii dafa war a am parce que ci seen cosaan la bokk amul kenn ku ko ci regretté. bëgguma woon kii sax waaye dana am leneen lu ma parce que jotaay yu mel nii yombut te ñun suñ xale yi dañoo war di jël information yi di ko jàngat jàngatal seen bopp bañ ñu di leen ko jàngatal Nicolas Sarkozy bi mu fi président yéen ñoo xamoon ngeen amoon na fi jabar joo xam ne dañu ne jàngam jàngut wala jàngam soriwul demul université c'est la première fois dafa nekkoon événement ñu ne jabaru président France boo xam janga jàngut jàng mu sori mu jaaxaloon ñëpp ñuy ndax loolu dana indi erreur am déet mu war a dem voyage Angleterre li jaaxal tubaab yépp journaliste yeeg analyste yeeg boroom xam-xam yépp li leen jaaxal mooy bu àndeek jabar ju mel noonu dem Angleterre te Angleterre affaire u reen ak buur la dafa am ay norme ak ay règles yoo xam ne boo àndeek buur bi ni ngay doxee ni ngay naanee sa café ban heure nga koy naan ni ngay def loolu bu ci defee erreur dafa indi problème mangi ngi fàttaliku dañoo jël ndaw si boole kook ay expert pendant 2 mois ñu diko ko defal formation ci nu muy def ba du def erreur ci kanam bour bi ci kanam ren bi avion bi départ jëm Angleterre dañ ko doon reporter comme ni ñi reporter maanaam ap président bu juk dem ñi wax étape bi mu toll ci biir avion bi nangam ak nangam yi xew tuddee ko visite de haut risque haut risque waaw visite de haut risque lañ ko tuddee woon Mangi ngi fàttaliku bi ñu demee ñu di def par étape étape buum jall ñu ne bii réussir na étape buum jall jàll ñu ne réussir na ba étape bi jeex dañ ne ouf ouf ouf moy ouf ouf de soulagement loolu lan la moy manam jall na examen bi defut ben erreur té erreur bi yépp lan la def ragal erreur bi yépp lan la moy lo xamné bour bi su toogee ñu tegal la naan am yow da ngaa war a xaar ba mu yëkkati bosam ngay soog ko yëkkati sa bos boo yëkkatee sa bos sa bos warta gën a yëkkati ku bosam dégg nga buy dox dafa am pas yu mu war a dox nga soog a dox France respecté loolu ba di ko jàngal jabaru président bi pendant deux mois loolu lan la du aada rek waaw kon kay ñoom wan nañ ñu ne aada ndekete noonu la amee solo kon buñ jàllar bi ko ñun bëgguñoo gëm la ne suñu aada yi baaxul ñun lañ yaw kon kurma mu ne aada cosaan tamit dafa am solo ci nit ki waaw boo demoon bu ma bëggoon ba ma bañutoon ma gudd danaa la wax tey bu njëkk ba ñi nga xam ne ñooy daan dem ci lël yi ak euh, nangam nangam xool ko ba léegi rek xeet yi nga xam ne ñoo desee yooyu muy joolaa yeeg séeréer seek ñenn ñenn ñi ko desee ba léegi ñoo gën a authentique ñeneen mu neex mu naqari kon loolu yi tamit mu ne loolu dañ koo soxla mu ne beneen Afrique bu mujj bi nag mooy Afrique gu diine Afrique gu diine yi tamit Afrique daf koo soxla. parce que diine moom li ko tax a jóg mooy defar jikko yi defar xel yi ba nit ñi nite gis nga développement bu ñëwee te ànduta ak nite billaay développement baaxul xam nga développement moo indi benn sareeti mbaam borom sareeti mbaam toog ci mbaamam mi toog ci digg circulation bi oto yi di pimpé bi muy wax téléphone développement ko indi parce que bi téléphone amagul bu boobaa du du mënutoon a def loolu développement moo indi nga nekk ci biir oto bi keroog am na ku ma doon yóbbu man dama xaw ma ñaata salaatu fatiha la jàng ci biir oto bi parce que ñëw nañ euh, yóbbu suñu oto Dakar oto bi paan moom mu indi oto bu bees tëj biroom ñëw ne xaaral ma yóbbu sëriñ bi xam nga teraanga jooju mënatoo ko wax dara waaye ci biir oto bi chaque cinq minutes mu liir message tontu te message écrit lay doon ba pare te mi ngi daw vitesse ma ne lii moom euh, léegi amul benn solution lu may téye salaatu que kii mënu kon li xew mooy loolu loolu mooy li nga xam ne moom lañ war a moom la jigéen ñi war a jàng d'après li ñu wax fii léegi nañ jël afrigo colonial yi mooy technologie bi yëpp nañ ko jàng nañ jàng changement climatique nañ jàng nañ jàng lépp lu ñu war a jàng nañ ko jàng mais nag nañ nekk ay sénégalais ci suñu aada ak suñu cosaan waaye nañ nekk sénégalais ci suñ njullit ak suñ diini wala diine juñ mënti doon ñu nekk ko loolu mooy li nga xam ne moo ñuy téye waaw suñ ko defee muy nu léegi nag pour ma tëj wax ji comme waxoon naa ne duma ko guddal li may dénkaane rek mooy gis nga Adja Lalla ak seen partenaires yi gis nga mbootaay yu ndaw yi bu leen ko xeeb parce que mbootaay yii Afrique googu ñuy wax ñu war a booloo ba ci Union kenn ba ci nangam mënta dep mënta am lu may mu déparé ci mbootaay yu ndaw yi. bu dee fukki nit la bu dee juróom fukki nit la ñu ànd takkaayu mbooloo moomu ñooy ànd mbooloo yooyu mooy bëri bañ taxawal lii tey ñuy jàmbat ci Sénégal ñëpp soxla réew mu nekk jeunesse bi soxla nañ moyen de pression boo xam ne wala moyen boo xam ne suñ meree état bi wan ko nekku d'accorduñ taxaw état bi taxaw waaye est-ce que solution bi mooy mooy mooy jaay sa bakkan bi wala wala yàq alali jàmbur wala nangam wala mer te mer di safara waaye mbootaay yi solution la mbotay jigéen yi mën na dem ba ag ci doole fo xamne ne lu état xamne neexut du ko def parce que xamna ne buñu agge ci élection ñom mën nañ ko daal te nek da fay and ak jamm and ak dal mbotay yoyu moy mbotay yi sax bala mbotay yi na am fu commencé Sénégal mu euh, tour de famille ak y famille malheureusement la ci doon sentu mo ci am départ bi dañ ci jublu lu bax may day dem parce que dañ ci dugal puukare dugal dugal ci xeebante dugal ci waneewu bu ko defee mu yàqu waaye gis nga mbootaayu famille yi moom moo waroon a téye Sénégal ci jamonoy crise parce que bi fi corona bi ñëwee bi ñëpp àndee tàmbalee ci état beeg mbokk yeeg politiciens yeeg ñëpp def solidarité génn nañ ci corona bi génn boo xam ne kenn foogu ko woon ak li muy métti métti kon loolu waroon nañoo jox misaal ne su famille yi suudee woon parce que bu njëkk ci famille yi boo bokkee ci famille bu bu ñu daan wax famille bu mag duutoon tiitaroog maa gën kii ak maa famille bu mag li mu daan tekki mooy famille boo xam ne boo ci bokkee sa baay mu am xaalis mu ñàkk am xaalis doo dee sa baay am xaalis ñàkk xaalis ñàkk xaalis doo rafle sa baay am xaalis ñàkk xaalis da nga mën a jàng ba àgg ci niveau boo xam ne moom au moins mën nga ku amul xaalis mën na fa àgg sa am xaalis bu amul xaalis boo feebaree da nga faju loolu moo doonoon famille yi kon c'est vrai que àddina bi métti na changement climatique bi changement nangam euh, problème économique yi problème nangam problème nangam waaye yooyu yëpp yëpp su fekkee ne ci kaw rek lañ bëgg mu régler du sotti waaye ñu nit nañ régler suñ bopp nañ delluwaat ci mbokk gi fonk mbokk di yërëmante di suturaalante di jàppalante waaye tamit nañ encouragé ñii nga xam ne ñoo yore mbootaay yii di dimbale jigéen ñi di leen utal financement di leen jàngal ni ko war a defee ñu encouragé leen wan leen dignité buy tax ñoom it ñu sawar ci continuer ci loolu loolu bokk na ci li nga xam ne mooy indi jàmm ci Sénégal kon ñi ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci service su nit ñi Seydina Omar foofu lay taxaw nee na am na ci nit ñi ñoo xam dañoo muus lool ñu ne ko muus mooy lan mu ne muus weesuwut nga fexe ba nekk ci askan bu ñu jaaxlee wala ñu am problème ci yow la ñuy ñëw nga régler leen seen problème kon yéen ñi nekk ci loolu yàlla na yàlla taxaw ci seen mbir yéen i tamit wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu